bu ma ko dee recevoir nag ci invité euh, d'honneur dama koy jox dayo bi mu yellool ndax koo xamee ni dëkk bu mu dem bu ko président bi accueillirul jabaru président bee koy accueillir ba ñu ne egg nañ ci dëkk bi ñu war a jël hôtel gars yi organisateurs yi jël ko bëgg ko patampante mais comme ils font tout souvent. mu dugg mu xool hôtel bi mu ne non. doyu ko jamais. waaw fi may tëdd foofu la sama gaay di tëdd. am nga sa ñaanu baay ba mu dem barsàq. je suis allée voir un ORL. ci la ma ORL bi nag expliqué ni ma bi ñu defee radioscopie fibroscopie après mu ni ma bon y a une corde vocale qui a bougé. da nga koy yërëm. mais ki feebar ki moom moo leen di. c'est incroyable quoi c'est-à-dire c'est elle qui qui donne le tonus. quand j'ai appelé mon médecin qui est en France qui l'a diagnostiqué il m'a dit écoute c'est quand tu as été intubé pendant cinq heures de temps d'intubation c'est long quand même. Mm-hmm. euh, voilà que ça a créé ces problèmes-là. Fatou Kiné Mbaye sa yaay da ngay ngalam ci suñu biir te man xam naa ci dara ndax yaayam jee lu yendu ci moom rek fanaan si na ci man Kiné laa elle nous aime beaucoup je lui eh, de <laughs> après me dit si eux ils peuvent toi tu peux il m'arrive de craquer comme c'est le cas mhm. en ce moment parce que sama son voix moo neexul quoi voilà su ma <laughs> déggee le son de ma voix je suis triste Balus ça va aller ça va aller